su au ma tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre. bi convocation sax jur ciow ndax mom bart ak ay avocats am japp ni politique da koo lal ndax dañoo bàyyi ba mu déposé listam élection locale yi ñu daldi di yëngalaat bi les dossiers. xamna luñu lu ci dossier bi xamna luñu ci nam parce que waxna ko sànq ci tubaab nee ñom bañuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xolaat sondage bi. ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne ne yàlla mooy buur ñu ne moom mbir bi comme ni la tëddee nañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier yi malgré bi les sax sax terewul diggante takk der yi ak askan bi tàng na lool ci subaak léegi ndax ku mel ni Ousmane Sonko ak ñamu àndal dañoo jugoon ngir gunge ji Barthélemy ca tribunal. gis ngeen ni ñuy def leader yi gis ngeen ñi ngi xëcc Ousmane Sonko gis ngeen ñi ngi xëcc Ousmane Sonko xool leen gis ngeen jàpp na jàpp na Ousmane Sonko xoolal xoolal Malick Gakou xool leen ma gis ngeen gis ngeen Malick Gakou gis ngeen ni def Malick Gakou population bi nag wàccandoo nañu en masse ci tali bi ndax bu ñu fàtte ni moom Barthélemy dafa woote woon à la résistance ndax dafa jàpp ni li procédure de liquidation politique la. mais sakku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nous ñu woote woon masse résistance nous la ñuy woote waat résistance parce que dama ne ku xamul buur dee na nga xam ne ni buur dina dépense parce que avons est-ce que n'y n'est rek une manière pour Diaz fils et les avocats de manipuler l'opinion à leur faveur. si on ñu fàtte ni les convocation notifié bien avant la période électorale bi. avons un amalgame yu bëri nga xamante ñu nous koy def am sénégalais mais ça ne correspond pas véritablement à la vérité. Avocat, avocats depuis le 7 juillet 2021, nous savons nañ le 10 novembre 2021 Barthélémy Dias dinañ ko jugé en appel. le lendemain bi nga déposé na li nga mom moy de listam mm-hmm. citation bobu la jot. avocat bi nak ci la basé pour wax dès le lendemain de sa convocation dañ ko convoqué au niveau de la cour d'appel alors que beaucoup de waxee ne ça correspond pas véritablement à la à, la vérité parce que même si boppam xamoon ni le 10 novembre en tout cas presque 10 ans le dossier Ndiaga Diouf bi en instance du tribunal ginnaaw a été ko pour deux ans dont six mois ferme ak son bouton millions pour mu verser famille Ndiaga Diouf Mombart interjeté appel en même temps que procureur waye boobu justice mënul faire bandar képp le procès Tainak famille Ndiaga Diouf ñoo demandé de renvoi ba le premier décembre décembre 2021 Li Bart ak ay jegeñaaleem di bañ a dégg ndax jàpp nañu ni bi la date da leen di fekk en pleine campagne électorale est-ce que sax date bobu dañu ko choisir sciemment pour encore campagne bi en tout cas mon Bart, xamle won na ni limu bëgg moy ñu atté ko ben yoon mu jeex lu ko mooy rek dotul wuy ji jëm ci mbir moomu Fi mu ne vu la situation soo moytuwul yoon mën na ko topé lenen lu ci melni trouble à l'ordre public li leen leen indiloon ci xibaaru bés bi fi ci Totem Actu way leen rek di ñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu ou tam ci site internet www.totematu.com